si Cissokho ñu ngi lay nuyu. ñu ngi yow lañu ñu dénk euh, kàdduy intersyndical liggéeykat collectivité territoriale euh, daanaka ñaari at mi ngi nii yéen a ngi ci ab grève bi nga xam ni jàpp nañ ni seen sañ-sañ la waaye mel ni ba léegi ab solution amagu ci lan mooy problème bi. waaw xam nga wala ñu ngi leen di sant di gërëm comme nu nga ko waxee rek depuis pratiquement. ñaari at a ngi nii ñun liggéeykat yu gox-goxaan yi ñu ngi banque suñu loxo pour réclamer suñu droit bon yaakaar naa ne Sénégal yëpp xam nañu lu ñuy réclamer jarul ñu si dellu mais li am ba am mooy mais solution mun nañ ko trouver parce que ñun ñi nga xam ne tey ñun ñoo jiitee intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales ñun teg nañu sax si table gouvernement bi ay solution yoo xam ne daf ñuy permettre ñu génn si crise bi parce que yéen umpalewu leen ne. amul na ay jamono benn euh, benn structure bu fi nekk mooy structure bi nekk fii ba léegi d'ailleurs muy le centre national de la fonction publique locale de la formation def nañu tour du Sénégal pour jéem a xayma ñaata liggéeykat ñoo nekk si gox goxaan ak ñaa ñoo xam ne ñan lañu ñu war a mun a fay ñan ñoo xam ne bokkuñu ci ak ñoo xam ne euh, seen dossier dafa complet wul xam nga loolu liggéey boobu def nañ ko mais ñun ñu koy sant ñi ñi ñi koy rafetlu liggéey boobu nag bu mu ñëwee dañu yaakaar ne tamit administration continuité la. yaa ngi dégg yaakaaroon ne état nguur bu bees bi bu mu ñëwee def si sukkandiku rek pour ñu commencer se d'ailleurs d'autant plus que ñun neewoon nañ leen ne bon comme que am na ay statistiques yoo xam ne joxe nañ ko ñu seet ñoo xam ne tey ñoom euh, statistiques yooyu dafa ne ñii ñoom seen dossier amul benn problème mun nañ leen fay ñi dambalee fay ñooñu parce que man je me rappelle boobu bu bu ñu koy wax sax à l'époque quatre mille et quelques travailleurs la woon tey sax nee nañu dem na affaire bi dem na ba six mille donc loolu yëpp ay waxtaan la man je pense que ne. ñun ñu ñëpp muy ñun intersyndical muy état muy population ñun ñëpp jàmm rek la ñu bëggal affaire bi parce que kenn buggul sa réew tàkk wala kenn bëggul euh, population yi di am ay difficultés mais loolu yëpp nag bu naree am il faut que nit yi nangu toog autour de la table ni toog waxtaan en tout cas ñun intersyndical ñun ñu ngi ciy dox suñu waar bu baax parce que gis ngeen euh, euh, fan yële néew fan yële passé kii nu mu tuddati waa assemblée nationale woo nañu. commission bi. commission bi woo nañu euh, du dialogue des territoires lañ ko tuddee mais bu ñu wooyee dem leen wuyu. Mhm. Euh, madame Aminata Mbengue Ndiaye présidente du du conseil des collectivités territoriales woo nañu. bon ñi toogati madame Innocence Ntap Ndiaye présidente du haut conseil du dialogue social bu woo nañu ñi dem wuyu ko moom sax bu ñu wooyee daf ñu ne nañu jéem a def ñun tamit benn euh, proposition de sortie de crise comme sax moom dina ko jébbale dina ko jébbal président de la république. parce que yéen xam ngeen ne léegi au conseil du dialogue social moom ancrage bi fi présidence lañ ko yóbbu léegi. Mhm. nekkatul ministère du travail. ñun loolu yëpp def nañ ko mooy wane ne encore une fois que ñun ñun ay ay ay sénégalais ñu ay patriotes lañu ay responsables lañu du ñu buggal suñu euh, jàmm rek la ñu bëggal suñu réew. ñun bëgguñu fi ay scandale bëgguñu fi te d'autant plus que grève bi yéen ñëpp gis ngeen ne mi ngi doon lor askan bi. Mhm. ah mhm. ñaari at ci grève ñaari at ci ci collectivité territoriale dafa metti mais ñiy wax rek ne. te loolu boo gisee ma ci insister ñun intersyndical ñun nekkuñu ci champ politique ñun ci champ social la ñu nekk ñun dañu fi nekk pour défendre ak ak yelleefu liggéeykat yi foofu la ñu yem ñun yi nekkuñu ci leneen mais maintenant ñoo xam ne nag dafa bekk dafa am ñoo xam ne dañu bëgg a jaar ci ci affaire intersyndicale bi pour dugal ci politique bu yoboo ñu taxaw parce que ñun nekkuñu ci loolu ñun dañu nekk fii pour défendre intérêt travail voilà dafa am ñoo xam ne ñun dégg nañu écho yi ñu nekk ci suuf bu ko jël affaire bi bu ko ko politiser mais ku koy jéem a def di ñu fekk sa yoon si si si dinañ taxaw sa kanam parce que ñun politique ñu ñu bëgg a politique nag ils sont libres d'aller faire la politique mais ailleurs mais pas dans notre cadre parce que ñun ay liggéeykat la ñu dañu nekk pour défendre no droits mais képp koo xam ne nag yow sa ambition mooy ñëw jéem a jaxase xelu nit yi pour jéem a dugal politique si lu ñuy def di ñu fekk sa yoon ñun duñ la bàyyi ñun lu leer laa wax. parce que ñun fu mu nekk nii dañu sonn ñaari at mi ngi nii di daw si euh, loo xam ne suñu droit légitime la du ñu toog ba bu bëgg a egg si cëppaandaw bi ay nit ñëw bëgg ko yàq fii Sénégal ay nit yu soxor rek ñoo fi nekk ñu su bare dañu soxor bëgguñu kenn réussir nag looy def rek dina am ñoo xam ne dañuy jéem a gàllankoor pour jaxase la pour naan travailleurs yi voilà ñii ngi nii liggéeyuñu nangam nangam dañ leen di loolu nag ñun dofuñu fii lañ dëkk si dëkk bi dinañ ci bàyyi xel kuy ñëw si marché bi nag na ñëw te euh, na nga na nga ñëw xam ne ñun marche bi marche pacifique lañ ko def dañuy réclamer suñu droit comme ni ko constitution mayee mais képp koo xam ne da fa ñëw yore yeneen ambition bu yow nga dëpp parce que ku fa ñëw indi fa discours politique di ñu dégg te dinañ taxaw jàkkaarloog yow. Mm, beneen bi ñeen ñi dañuy laajte ni sax euh, yenn ci central syndicale yi est-ce que ñu ngi jàppale liggéeykat yu fare ci collectivités territoriales yi est ñu ngi leen di soutenir. mais ñu ngi ñuy soutenir bu baax te c'est c'est le lieu même de les saluer parce que yéen récemment rek gis nañu Cheikh Diop euh, secrétaire général CNTS FC mais def na benn point de presse ah pour jàppale ñu si suñu suñu xeex bi yaa ngi dégg du Kiro tout le temps def ciy wax ah ndem si yàlla Sidya Ndiaye dundam yëpp wax na ci du dëgg pourtant euh, secrétaire général central la woon boo jëlee ku mel ñoom Mariama Diallo Elimane Diouf bu CSA ñoom ñëpp dégg nañ leen ci ñu ngi ciy wax. donc centrale syndicale yi croisé wuñu seen bras parce que saa yu ñu amee opportunité toog ak gouvernement bi ñu ngi ko ciy wax donc ñu ngi leen di saluer ñoom ñëpp ñu xam ne ñoom ñëpp jàpp nañu ci combat bi parce que en fait ñoom lu ñuy euh, ñun lu ñuy xeex ni ñoom ñëpp d'accord nañ ne suñu àq ak yelleef la dañu nekk suñu droit parce que tamit centrale yooyu ay responsable ñoo fa nekk bu leen wóoroon ne tamit ñun lu ñuy réclamer du suñu droit duñ ci wax du dëgg donc euh, c'est ñi leen di remercier. mën nañ leen xaarandi ci mercredi bi. waaw waaw ñoom ñun xam nga fu mu nekk nii ñun travailleurs yi collectivité territoriale yi fii Sénégal yëpp ji ngeen tey boo boo woote woon léegi Ziguinchor Ziguinchor nga woote Kolda Sédhiou partout au Sénégal les travailleurs ñoom ñëpp dinañu préparer wu pour def marche pacifique dem ba ci euh, dem ba ci préfecture yi ah euh, déposer seen seen déposer suñu mémorandum ñun loolu la ñu leen wax woo nañu liggéeykat yi nee leen nag def leen marche pacifique ni dox si njekk ak teranga ni dem fekk préfet yi nee leen voilà lii mooy mébétu travailleur collectivité territoriale yi ni ni wut saafara ñun ñun daal ubbeeku nañu ñun tëjuñu suñu porte parce que ñun dañu yaakaar ne crise moom bu amee waxtaan rek moo koy mun a régler euh, ñun euh, ubbeeku nañu buggoon nañu ñun ministre bu ñu woowoon tey ñu dem wuyu ko ak comme ñu munti woo pour pour pour ñu waxtaan pour trouver solution nous sommes disposés parce que ñun nous sommes des acteurs du dialogue social parce que ñun dialogue social la ñu gëm te si nañ xam ne ne dialogue social mooy mun a régler problème yi parce que ay perturbation fu mu am waxtaan rek moo fu mun a am pour jamono ñooy. Bala foofa Fofana mooy seen ministre de tutelle euh, ginnaaw ba mu toogee yu njëkk woo leen waxtaan ngeen mais ñenn ñi ne euh, lim leen euh, wax ñenn ñi ay menaces la wala yow jàppee woo ko ay menaces pour ngeen dem liggéey. non mais man très honnêtement man wax boobu sax moo koy dégg daf may xaw a jaaxal mais fan la ñu ministre bi menacé man defu gisuma fay benn menace ministre bi jël na ay acte xam nga ñun lu ñu amee droit pour dem bañ a dem liggéey. def grève parce que c'est un droit consacré par suñu constitution noonu la ministre bi tamit amee droit mu ne day def réquisition kooku la moo ko ko may yaa ngi dégg mais man gisuma foo xam ne ministre bi wax na ne daf ñuy menacer il faut aussi que et puis d'ailleurs d'ailleurs mais bon moom ban intérêt sax la am pour wax ne def ñuy menacer man gisuma ko et puis menace ku koy wax sax Sénégal mais menace xewi na parce que d'autant plus que ñun lu ñuy def nii dañ ko def si dañ ko teg si yoon dañu yaakaar ne ñun dañu amel Euh, suñu droit légitime ñi koy xeex ñun saaguñu kenn sànniwuñu xeer tojuñu dara dañuy réclamer ci ay ay ay discours ci ay ay bind mi ngi bind di wax ne ñun dañu am droit nañ ñu ko fay mais ñun foofu la ñu yem donc menace kay gisuma ko man gisuma benn ministre bu ñu mën a menacer d'ailleurs man xaw ma sax lan mooy menace parce que fii Sénégal kii koo xam ne yow yaa ngi sa droit di doxal sa droit nan lañ mën a menacer man très honnêtement man gisuma benn menace. parce que man gisuma kan moo ñu mën a menacer fii sax Sénégal voilà. ci geneen wàll gi si Cissokho yaa jiite FGTSB ci euh, wàll wi ni mel euh, li nga xam ne itam moo jëm ci euh, denrée yi mooy yenn ci produit yi itam état wu Sénégal teg na si ay jéego wàññi yow nga jiite ab syndicat déjà lan mooy sa kàddu gu njëkk li ngay rafetlu la ginnaaw gi am na ñenn ñi sax ñu ngi réticent ci li nga xam ne moo jëm ci bees bi. mais man dama koy rafetlu parce que ñun kay luñ loon rafetlu ñu ne ñu yokkaat nañu pour kii waaw mais ñu ñoom ñu ngi naan dañuy dañuy wàññi waaw mais bu ñuy wàññi kay même lu buñ lu ñu wàññi lu mu néew néew néew dañ koy rafetlu mais ñu leen di ñaan rek ñu leen di gën a ñaaxaat lu ñu gën a mun a wàññi tamit mu gën a baax du dëgg mais wàññi kay ñëpp ko war a rafetlu moi je ne vois pas pourquoi ñu bañ ko kii parce que ñun aussi ay syndicalistes lañu dañu nekk ak ay liggéeykat mais loolu dafay peser wu sur le panier de la ménagère donc suñu nee wàññi nañu prix du sucre prix du lait prix du kii bu ñu wàññee les denrées de première nécessité mais luñ ci mun a wàññi tamit ñun dañuy applaudir dañu xam ne loolu c'est tout à fait normal parce que tamit gouvernement bi ñu fal nii ñun sénégalais yi si loolu lañ leen doon xaar. parce que dañuy gisoon ne bon il y le le le coût exorbitant du prix de euh, de maanaam euh, la la vie était très chère. produit yi ah, yooyu yëpp mm-hmm. ñu voilà produit métti woon na ñu ngi leen di kii mais nag yemul rek si produit première nécessité yi ñu ngi leen di xaar aussi si yenen euh, problème yaa ngi dégg bon et puis am na loo xam ne sax dama ko fàtte wax si si si si nasaraan. mooy lan mooy aussi la protection de nos produits halieutiques la mm. nañu gën a bàyyi xel si suñu géej yi. nañu bàyyi xel suñu géej bi parce que ñu ngi yàq suñu géej ñun Sénégal am nañu géej boo xam ne ñun nous avons l'une des mers les plus poissonneuses fii dans le monde bokk nañ si ñu gën a bëri jën fii mm-hmm. mais actuellement ñu ngi brader suñu suñu océans yi nit yaa ngi ñëw di jël suñu jën yi di ko tasaare yàq nañu suñu géej bi complètement gouvernement bi nag daf ci war a taxaw comme ça ñun tamit ni suñu denrées yi nga xam ne produits halieutiques yi ñu doon am à l'époque te amatuñu ko mu refaire surface parce que géej bi tamit dañ ko war a aar parce que bu ñu aaree géej bi tamit géej bi dafa dafa bokk euh, si si loo xam ne dafay suqali économie réew mi donc nañu gën a bàyyi xel sur nos produits halieutiques ñu défendre nos nos mers comme ça ñu bañ a ñëw di ko brade d'accord ñu ngi lay sant di la gërëm ginnaaw ba nga nanga wuy si wala tontu suñuy laaj si Cissokho. voilà merci beaucoup. di fàttali ni yow yaa yor kàddu yi intersyndical collectivité territoriale.